Mbacké asalaamualeykum waa la région de Diourbel maa ngi am mbégte teew ci dëkk bu tedd bi ndax ku ne xam na ne Cheikhul Khadim fii la bawoo waaye ku xam na également ne kuy woote gëm sa bopp sa xel dem na ci baabul muridin mu di maam Cheikh Ibrahima Fall dëkk bi dafa am taarix moo tax ma am mbégte ginnaaw bi nga xamee ne ki ñu yaakaar ñun ñëpp mu di Cheikhul Khadim teg nañu ci yoon tegte nañu ci dëgg tegte nañu ci gëm suñu bopp parce que li mu ñuy wax lépp ci yoon woowu la ñu teg bu ma ñëwee ci dëkk bi damay sant bu baax xalifu Daaru Salaam sant it suma sëriñ suma xarit mu di Serigne Cheikh Anta maa ngi koy sant bu wér waaye di beral ab cant Serigne Galas mi nga xam ne yónnee na fi délégation bu am solo may sant également képp koo xam ne yaa ngi bokk ci fédération gëm sa bopp du Bawol di ci beral ab cant bépp responsable muy góor muy jigéen ci wàllu Touba ci wàllu Mbacké daanaka dans la région de Diourbel ma teg ko ci loxo Ibrahima Gueye mi nga xam ne mooy superviseur bi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax suma yaram dafa daw bi ma gisee suñu yaay yi toog li ko waral mooy xam naa ne seen coono yéen a ngi seenu seen njaboot daal di leen pompal seeni rangoñ njaboot googu tey jii ñoo sonn famille boobu tey jii ñoo jaaxle famille boobu tey jii ñoo am lu leen metti mooy suñu doom yi mooy suñu jarbaat yi moo tax man Bougane Gueye ma takk suma ndigg benn paa bu am xam-xam nee na ma Bougane yàlla dénk na la lu tax ngay daw ma ne ko bàyyi li tax may daw du pour sama bopp waaye ñi ma jàkkaar lool am ci ñoom yërmande lool te ñi nga xam ne ñoom la ñu jox réew mi yërëmuñu leen moo tax ma takk suma ndigg ngir xeexal leen parce que ku ne xam na ne jigéen ñi jàmbaar lañu waaye jigéen ñi sonn nañu ku ne xam na ne borom kër yi jàmbaar lañu waaye tey jii boroom kër yooyu sonn nañu ku ne gis na yokkute gi nga xam ne am na ci li ñuy dunde mu di ceeb mu di dëwlin mu di yàpp mu di jën benn bu ci nekk tey jii daanaka doom bu ci marché yi waaye pour nga teg ci loxo jafe na lool lool lool lool loolu nag ki leen ko teg ki leen teg jafe-jafe yooyu ki leen dugal ci gutta googu nga xam ne Sénégal tey jii njaboot bu nekk jaaxle na du kenn ku mooy le président Macky parce que moom moo jël ay décisions inappropriées tey jii ñu ngi wax waxi Covid ñu ngi wax yokkute bi ci Covid dëgg la ñu ngi ciy bàyyi xel dëgg la jar naa moytu waaye tey jii. Sénégal amul benn arme lu tax parce que Sénégal tey capable ñu sax am ay vaccin ak capable ñu sax tey suñu doom yi ñu daal di leen vacciner suñu papa yi ak suñu yaay yi nga xam ne ay mag lañu ak ñi nga xam ne ay allaités lañu tey jii kenn mënu leen vacciner parce que le gouvernement du Sénégal est incapable le pouvoir de Macky Sall est incapable. man waxuma man waxuma ñu jëndi vaccin dama ne Sénégal am na ay borom xam-xam am nañu ay expert am nañu borom xam-xam yu mucc ayib yoo xam ne bu ñu leen encadré woon tey jii Sénégal mun naa liggéey ci vaccin boppam parce que am nañu capacité bi lan moo koy joxe xam-xam te xam-xam Sénégal la fekk baax. damay joxe rek benn exemple ci dëkk bii ñu taxaw mu di Mbacké ma ci profito di jaale njabootu sëriñ Fallou nde ku ne xam na ne suñu sang ba suñu Serigne ba suñu xarit ba Serigne Mamor Mbacké bu sëriñ Fallou dafa génn àdduna kooku mu di sëñ Mamor moomu bi mu amee juróom ñaari at la wàcc alxuraan fii ci Mbàkke kon nga xam ne jot na ñu bàyyi xel suñu njaboot jot na ñu bàyyi xel suñuy doom jot na ñu bàyyi njàng ci Sénégal parce que li ma gëm man mooy njàng mooy soqali Sénégal li ma gëm man mooy bu ñu bëggee soppi Sénégal faw ñi nga xam ne dañoo jàng diine jàng alxuraanul karim jàng arab ñu jox leen seen cër ci réew mi kon jot na jot na jot na encore une fois ñu defar tey ci Sénégal université franco-arabe parce que jot na nag Sénégal di war jël ay doomam di leen yóbbu ci université boo xam ne fii la nekk loolu suñu kilifa yi nekk ci pouvoir bi réere nañu ko mbir waaye dañuy sant suñu borom. di jellu sant Cheikhul Qadim bi mu ñu joxee ku mel ni Serigne Mountakha yal na yàlla yokk kattanam yal na ko fi yàlla bàyyi lool mu ànd ak wér moom Serigne Mountakha moom Serigne Mountakha créé na université fii ci Touba bëgg na gone Sénégal am xam-xam parce que Serigne da doon wax ne képp ku lukkule kuy fexe nga ñàkk xam-xam. képp ku lay den sorele ak xam-xam kooku ku bëgg nga réer la waaye alhamdulilah bi ñu suñu borom joxe ku mel ni Cheikh Mountakha Bachir ñu ngi koy sant bu baax a baax ma ne ma ne tey jii ku xool jotaay bii ni mu mel xam ne le Sénégal doyal nañu ci président Macky Sall senegaal doyal nañu ci benn Bokk Yaakaar Sénégal doyal nañu ci ñuy nax Sénégal senegaal doyal nañu ci ñuy pasar pasare suñu aral Sénégal doyal nañu ci ñi télé di puus boobaak léegi mënul dem dama bëgg rekk suñu yaay yi fi toog yéena ma gën a dégg wolof xam ngeen ne wolof dafay wax ne borom ndey ju liggéey bu naree fande dibi lay reere kon encore une fois borom ndey ju liggéey bu naree fande dibi lay reere man Bougane Gueye yéenewuma waa Sénégal poñse moom mi leen yéene poñse ba ci yokk gloria wax na leen fi mu jëmeeg yéen wax na leen fi mu jëme Sénégal kon nag ñu ko may dara duñu ko ko may moom président Macky Sall na xam ne lu mu ko jaral ñun ñi sénégalais yi jaral nañu ko te danañu ko dindi foofu mu nekk en 2024 loolu nag dafa laaj seen engagement laaj seen détermination moytu leen ñiy wax moytu leen waxkat yi dañuy wax ba ñu jox réew te duñu fa def dara bàyyi leen xel kàddug maam Cheikh Ibrahima Fall ja nañu dem ba keroog ñuy fay wax di bàyyi jëf kon dama leen di invité ngeen bàyyi xel jëfkat yi nekk ci réew mi parce que ku mel ni président Macky Sall wan na leen li mu mëne tey jii dem na ba yéen sénégalais yi dem na ba yéen borom kër yi dem na ba tey yéen jigéen ñi ñu ngi ronqi ci seeni poset yow ko góor ki ñu ngi ronqi ci sa poos nee na ñooy dañuy wutal gone yi liggéey tey booy wutal gone yi liggéey dangay ngay wax fan ngay jaar waxuñu fu muy jaar pour jox gone yi liggéey waaye wan nañu yoon bi muy jaar pour yàq liggéey bi mag ñi def Sénégal te loolu duñu ko nangu jàpp leen ne yéen ñi ñaq di jariñu man ak yéen ñi nga xam ne lu ñu am suñu ñaq bii moo ñu ko may jot nañu jël suñu bakkan bii def ko addiya ngir soqali senegal loolu nag xam naa ne du liggéey bu yomb parce que ñoom ci seen bopp ñoom ñi nekk ci bopp réew mi dañu maa xamul man Bougane Gueye xamuñu ne man at ba ma juddu ragal juddu xamuñu ne man njaboot gama jàngal njaboot gi nga xam ne ñoo ma tette mu di njabootu Serigne Cheikh Gaynde Fatma foofu ragal amu fa kon ma leen di lancer ñoom Macky Sall moom les sbires de Macky bu ngeen yaakaaree ne xoqatal ma tax na ma dellu ginnaaw. bu ngeen yaakaaree ne xoj ma tax na ma dellu ginnaaw man dama di ci Cheikhul Khadim ma ne ma ne mandi ci Cheikhul Khadim moo tax am 1000 francs ak denc milliard laa yamale bu ñu demoon tey jii ba lu ma am ñu jël ko ba ma desee sulettement dong dinaa jàkkaarloog ñoom dinaa xeex ak ñoom dinaa ko jaayanteeg ñoom ngir ñu xam ne Sénégal gii ñun ñoo ko moom